plateforme la tey nag ñu ngi fii seet si ki nga xam ne mooy Ndeye Yerim muy def li nga xam ne moo di événement bu rëy boobu nga xam ne depuis lor mi ngi ko doon wàcc ak mbokk yi nga xam ne ay andi jàmmam la ñu toog ak ki nga xam ne xaritam la koleeram ah, la yàgg nañ ko gis ci ginnaaw Ndeye Yerim mais aussi fu ñu ko gis rek moom Fatou Sarr dañ ko gis Ndeye Yerim mu ñëw fas yéene ko dooleel ñu fas yéene sampu waxtaan ak moom ci li nga xam ne moo di événement bi laata loolu ma bàyyi ko mu nuyu mbokk yi nga xam ne ñu ngi koy suivre Fatou maa ngi lay waaw maa ngi leen di fay yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar dina jox seen wàccuwaay mais namoon nañ léegi laa gis. <laughs> waaw maa ngi fi rek maa ngi fi nekk ci liggéey bi rek yaa ma gën a xam. Hmm. Hmm. moo tax nga gëj a génn waxtaan ak internet yi nga xam ne dañ lay bàyyi <laughs> ci liggéey bi rek yaa ma gën xam xam nga nee naa la nañ liggéey lu bari rek wax tuuti rek. Hmm. waaw dëgg neexul. mais naka nga dundee li nga xam ne moo di préparation sabar gi ànd ak sa xarit. mbégte ak kontante ah parce que nee naa la bés bu dellu si moo neex. ndax ki aaye dafa sa siman rek te rëkkuma ku ma bëgg ku ma féete ku ma safoo ku ma teg fenn nag ma teg ko faa wax dëgg yàlla mu nekk euh, ni ku baax ni ku ëmbal ni ku bëgg nawleem ni ki mën nawleem moo xewle tey moo tax ñu bàyyi suñu lépp ñëw dëgg du neex mu nekk lu am solo comme ni ko waxee mu nekk nit ku baax daal di xewle te dañuy gis à moom moo fay jiitu ah, képp koo xam ne am nga bés moom day yërëm taxawee na ko mhm. kon tey est-ce que tamit jotul ma am bisam tey am ñu ngeen taxawee ko mais yoon la yoon la wax nga ko say biir wax ne nga ko euh, ku xewle moom moo fay jiitu moo tax moom bu xewle tamit ñu dañ fay jiitu nag dañ ciy takk rip rip rip mm-hmm. waaw ndax moom moo ko jar te lu ko jaral la ko jar nag mm-hmm. te moom da koo jar nag waaw mm-hmm. naka bi mu defee sorti euh, di waajal li nga xam ne moo di bésam mais aussi mu xaale ci turu ki nga xam ne moo di xaritam di Mario Mbaye ne Mario lu baax rek la ko xamal mais ñu ci bëri dañoo gis ñu am ay polémique di wax ne maanaam warutoon waxee noonu ndax dafa faral ki nga xam ne moo di Mario xam nga Ndeye Yirim ak Mario dama naan ragal a féete day xañ a wërsëg Ndeye Yirim ak Mario picc ak la moom bu waxee dafa war a wax bu waxu dafa war a wax parce que Mario mooy Yirim Yirim mooy Mario wax dëgg yàlla nee naa la fépp espace la moom chaque jour loolu lay la di ko bankate kon bu ne wax nag am na droit wax nag wax dëgg yàlla nag. mais naka nga gisee euh, li nga xam ne moo di euh, waa ndax ndaxte lañ ko mën a waxee ndax ñu ci bari nee nañ dafa. Euh, def bad buzz ci li nga xam ne moo di kaw Mario Mbaye ñu ci bëri di ko critiquer. Euh, xam nga man ci yooyu nag duma ci faral di débat ndaxte man xam nga man lu sama yoon nekku rek sama yoon nekku ci te am na débat yoo xamante ne du ci bëgg a xuus comprendre nga moo tax ma bëgg a bàyyi noonu rek ah li ci kanam raw li bët daal yàlla baax na. Mhm. mais en tant que jigéen tey gis nga ni maanaam tey sa moroomu jigéen dugg ci say génn ba pare waaw ah, ba pare génn avié li nga xam ne moom la doon dund. Ah, li may yëg euh, comme ñëpp rek parce que tey jii nga génn def sorti wax lu la metti képp kuy jigéen rek di nga am lu la metti loolu dëgg la mhm. mais tamit euh, nit ku nekk rek lu waaye di wax nag ak lu waaye di bind rek na ko xam na la woo na la fekk ne na la leer mhm. moo tax yooyu noonu man comme ni ma ko daan waxee rek man ku ma xam-xam ne man damaa mës a tari sorotul maandu mhm. man damaa mës a maandu ci ay surtout nag vie de couple duma ci wax duma ci débat franchement parler mais ndaxte sama rakk la Mario sama mag la sama frère la sama chéri la sama lépp la kon nag ñoom ñaar mënu ma cee wax fii mënu ma ci wax fee damay ñëw rek waaw da ngeen a siiw maanaam lu ngeen dugg rek mu am coow surtout bu ngeen see bu di dem bu ngeen di ñëwaat ñu yëg ko xam ne nañ siiw du jaami borom hmm? siiw du jaami borom mais da <laughs> ngi sëy ba léegi ñii sëy ñu sëy ba léegi hmm? wax dëgg yàlla nag yàlla moom am na loo xam te bu ko bindee sa jër rek jàmmuñu ci dara hmm. loolu kese la mais ñuy sëy moom ñu ngi sëy ba léegi tubaarikàlla mais dañ koy gis muy répété euh, man dama part personnel lu muy dund man la concerné mu ma ci duggee ba ba may tas sax man lay concerné parce que gis nañ ci non du ma ko def nag franchement parler parce que tamit lu nekk rek da ngay sóoraale sa bopp nag ëllëg. du ma génn ci wax du ci débat ndax sama vie la bañ may ba may bañ labat ba di ma takk nit fekkeewul da ngeen a xëy day dégg xew. kon nag bu ma tasee. ni fekkeewul danga xam ne di tas naa rek ma nekk sama bopp rek. mais kon tey sama liggéey rek boo doon euh, conseil ki nga xam ne te ndax euh, comme sa sœur la te jigéen la aussi euh, ci li nga xam ne def na ko tey lan nga koy wax. instant bi mënut tujoo wax dara parce que le coup est déjà parti kon amuñu dara lu ñu koy wax franchement parler parce que génn na wax na nekk ci xolam surtout instant bi amuñu ba benn conseil bi ñu koy wax parce que luy génn génn na ba pare. Hmm. waaw. ci bëri neen dafa juum parce que euh, benn neexul. waaw moo tax ma ne la instant bii nii kenn mënu koo conseil parce que le coup est déjà parti <laughs> léegi na focus ci yow rek. <laughs> xam nga yéen da ngeen di pousse nit ma ci miir bis bi. avant tout dama koy nuyu di ko nuyu waa espace yëpp di ko ne euh, na na na ci lu mu nekk rek guma tax lu liggéey non jaru ko nag. Hmm. non jaru ko Mario ay mbokkam nañ day ñëw. non non pourquoi tontu pourquoi tontu tontu. non man sama gis-gis rek sama gis-gis laa wax rek jarul muy tontu na fukki ci liggéeyam rek comme ni mu ko daan defee rek waaw après bu ñëwee Sénégal mu def ni mu daan defee rek Mario xam nga Mario dañ ko xamee euh, kafoore ambiance moom moom moom bugg sax dara nit ñi di xaaw a stressé wala frustré wu wax dëgg yàlla waa nit ku nekk ndaxte dama koy wax mu focus ci liggéeyam bi ah, ci ah, son bu bees bi mu génn tamit ñu koy ñaanal yàlla tamit nag ah mu nekk succès bu réussir nag franchement parler na focus ci liggéey. waaw na liggéey na wax tuuti liggéey lu bari. mais mais yeneen artistes yi des comme yéen ñi nga xam ne amagu ngeen jëkkër tey ko conseil. waaw ñun ñi xamante ne amaguñu jëkkër ba ñu amee jëkkër nañ ko ngooy rek jàpp ko rek tarbi yu ko rek. waaw ñu tarbi ko rek yàlla baax na yàlla bu tëddaatee leneen rek ñu xam ne loolu gën. mais dafa am koo xam ne Toma la su ma nekk leen ci sëy jàmm yi ndax ndaxte ak mag yooyu ñu fekkee fekkee wala mais non seulement aussi bu ñu juboo du ngeen fekkee donc ngeen ah, te moom ba mu waxee boo leen jubawee duñ ko fekkee waaye moom tamit na maandu comme ñun ñëpp dañu maandoo rek mu jeex. Hmm. loolu kese la maanu maanu rek la fii fii ku def ku def lu fi fii def lu fi jar a wax dañ koy wax ba mu neex mais moom mi ni mu xam ne ne am na lu fi xew ba mu mën a génn taxaw di wax nañu dañ maandu waaw moom bu maandoo rek ñu maandu mm-hmm. <laughs> moom moom dafa wax lu nekk ci xelam daa fekk na yirim wax lu nekk ci xelam wax lu nekk ci xolam mm. moom mu wax lu nekk ci xelam wax lu nekk ci xolam parce que nit ñi bu ñu génn di wax ba génn di bind du ñu tàggu kenn nit ñi ñoo moom seen bopp kon nag man dama jàpp ne moom buy wax na wax ci côté ndaxte comme moom nee ndaxte doomam la mhm. euh, xaritam la léppam la na wax côté ndaxte rek ndax nit ñi bu ñu maandu ak bu ñu dul maandu du moom moo koy wax kaa mhm. bi noonu la demee mhm. si élément placé pour wax nit ñi nañu maandu parce que affaire bi dafa ne fàng lu ne fàng kenn du ko jeex kon ñëpp ci am baat pour wax ci ñëpp ci am droit parce que boo leen seetloo depuis lors nit ñi ngi direct di taf foto diw di taf photo diw nit ñi ngi wax te kenn laaju leen seen avis yaa ngi comprendre donc kon lii bu amee nit ñi bu ñu waxee bu ñu waxul na na na xaaw a nëtër tuuti rek. bu nëtëree tuuti nit ñi lu ñu def rek ñoom la. mais nee na nee na nee na tërewu leen wax ko mais comme que xamu ngeen ci dara jëru ngeen di wax surtout yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg fës wala ngeen bëgg ci. man dama man dama part personnel. lijjanti ma pour xam ku ak si soit luñ jotee man noonu laa mës a mel lijjanti ma fu lu ñu jote ak lu ñu jotewul ndax ba ngeen man laajee sànq dama ne leen sama yoon nekku ci man sama yoon nekku ci vie kenn ba léegi waxuma ci lu euh, lu lu ñor ak lu ñorut parce que lu ma ci wax bàkkaar fekkee ma bañ koy takk fekkee ma bañ koy tas kon lu ma ci wax juum wax dëgg yàlla mu nekk lu am solo lan ngay wax ci surprise bis bi tey lan moo fi war a xew tey lu ne di ngeen ko gis di ngeen gis lu nekk bésu ndey yërim bi du yomb ndax nee naa la fecckat bu leen bëgg gis tey di ngeen ko gis fii déggoo ma ne kaa yëpp a ngi fii li ngeen bëgg a traité tey di ko traité tey ci taani bi kaa yëpp a ngi fii loolu bëgg a traité di ngeen ko traité tey ci bés bi ah ndey yërim a xewle nag dëgg du neex nag kiwin nag kiwin gaa ngi noonu <laughs>